kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides ca ndigalul sëriñ Abool Baraka Mbàkke xalifa Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke commission bi baaxoo saytu liggéeyub dayre yi aju ci kër Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke fondation yi fédération yi ak dayre yi ak mbooleem kilifa yi baaxoo siyaare si sëriñ Abo Mbàkke xalifa Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab gi ñu ngi leen di jottali kaddu yu nuyoo yu ànd ak sant ak ñaan ak ngërëm bàyyi ko ci sëriñ Abo Mbàkke xalifa Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ngir seen pësëf ak seen i taxawaay ci mbooleem digal yi ñu weesu ñu ngi leen di yëgal màggalu Kazu Rajab di feeñ jamono sunu waaja cheikh mamadul fadal mbàkke ibnu cheikh ahmadou bamba mbàkke xadim rasul borom yërmande ja xéwal ya jàpp nañu ko àllarba juróom-ñaari fan ci weeru février 2024 ci touba mosquée kër cheikh mamadul fadal mbàkke sëriñ abo mbàkke xalifa cheikh mamadul fadal di ko yëgal njabootu xaadimu rasul cheikh yoon wi bokki mbàkke ak mbusoobe kilifay diine yi ak kilifay adda yi xarit yi soppe yi dëkkandoo yi wëlëre yi ak am ci jàmm yi di beral ay cant yu ànd ki ngërëm soppey cheikh mamadul fadal yi góor ak jigéen mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew commission bi baaxoo saytu liggéeyu fédération yi ak dayre yi ak fondation yi ñu ngi leen di yëgal tàmbali nañu liggéey ba bis bu set ku ñëw buntu kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Touba mosquée di nga leen fa fekk ku bëgg siyaare Serigne Abo Mbacke xalifa Serigne Fallu bis bu set bu xëyee dana ñëw fii ci kër Serigne Fallu Mbacke 10 ci suba ba 13 bu 13 nag day dal ñu julli ji bu 17 heures mu ubbiwaat ñu tàmbaliwaat siyaare yi ba ñu julli timis commissaire bi nag di yëgal dayri yi ne tàmbaliwaat nañu liggéey ba na jëwriñ ju nekk soññi ma 71 76 344 81 52 sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëfër si ak ko yore ab wata ba ci ab sareet rikk waaye nañu dox ndànk jaar ci yoon te sàmmonte ak yoon mi ngi ñaan ñi màggal si ñëw ci jàmm fekk nu fi ci jàmm nu bokk màggal si jàmm delluwaat ci jàmm laq ci ngërëmul yàlla ak fajuk aju barki Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbacké sëriñ Fallu Mbacké bisam baa ngi ñëw te barke ngëneelam ya day mel ne taw na ngeen farlu waajal ko ngir sàkku yiw sëriñ Fallu mbaa xam nga mooy tàbbi raw doonuy Seexi Bamba cëram kaw di mayam law Fallu dal siyaar jar na daw te sol dali weñ bàyyi lekk ak nelaw sëriñ Fallu yërmande daa tax ku ñëw siyaar am pajog ajo am bayre xew na am di njëndi firdaw sa yooy taaxi kaw ba tabal ca koy ab jullit ñëpp raw sëriñ Fallu man bay jagal maa ngi ñëw di way tey dagaan làq cër yuñ di naw la qualité fait la différence